ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp di baloo àq ñëpp ci li ñu waxante woon ak retard bi ci jot a am te li ci ëpp jógee ci man waaye embouteillage bu bari rek moo ñu téye woon waaye alhamdulilah Abdoul Aziz Fall def na ba def lu ëpp liñ yaakaaroon ci moom bu yemoon ci waxtaanu Abdoul Aziz Fall bi rek doyoon na sëkk ñi fi jaaraat ñëw ba ci imaam Mouhamed Lamine Diop Serigne Hadi Baye Ahmed Sànqe imaam Abdoulaye Fall tabarkalla ba ci alxaaji Moussa Guèye moom yóbbu nañu àllaaxira delloo si tabarkalla xalaxal mawta wal xayaata moom defal nañu ko waaw xalaxal mawta wal xayaata yàlla ne dee laa njëkk a bind ci dund kon yóbbu nañu foofu ba noppi indiwaat ñi waaw eh, te li gën a yéem li ma gën a yéem mooy dama du yéene woon ci sama xol ma ne waaw moom mu ngi naan nañ sant yàlla te jaam a ngi jaamu sant yàlla la na ko woy ci sama xol rek ñii yëkkati ko moo tax ma ne ko kon am nga soxla fa tabaarakallaahu eh, ñu ngi lay sant waaye di sant nag alxutbul akbar wal waliyul akbar cheikh alxaaji cerno mohamadul bachir ibnu buntaqa ibnu taaha ibnu cheikh alxaaji moom mi nga xam ne tey jii bokk na ci fukki aqtaab yi ak ñeent yi ngànk àddina bi cerno bachir ca la bokk waaye juróom-ñaar yi gën a mag ci biir fukk ak ñeent Cerno Bachir ca la bokk bila bila shakkin wala raybin amul sikki sakk amul jeex yi jaax aqtaab yi tax ma ne fukk ñeent juróom-ñaar yi ñoom la ñuy woowee almafatihul kunuz alxaaji abib si bii woy fa baxin baxin Cerno Yaxya li nee na ma kaana minhum mafatihul kunuz yi ñooy séddale trésoru yàlla yi walillahi xazainu samawati wal ard loolu yàlla wax ci alquran ne trésoru suuf ak asamaan maa ko moom dafa am ay xutbu yum ko dënk ñu di ko séddale aqtab yooyu la ñuy woowee mafatihul kunuz ñooña nag alxaaji abib si ca la bokkoon waaye ci biir juróom fukk ak ñeent yooyu dafa am juróom-ñaar yu leen yilif ci biir juróom-ñaar yooyu kenn dafa wëlbatiku yilifaat leen ñoom ñépp mooy xutbul fardul jaamia waaye dama ne juróom-ñaar yooyu yilif àddina tey Thierno Bachir ca la bokk te bam cay bokk yàgg na du tey boole bi ma alxaaji Abdul Aziz boole ak moom lii may wax dama bëgg bu demee mu seetaan ko Cerno Ousmane Diallo sànq dama ne ko waxal mu ne yóbbaale ma moo Maxtaar Basu ñoo ko fi toogal ak ci Ahmad Tijaani bañ mu guddi rek buñ ci xuusoon mu sori waaye alxaaji Abdul Aziz moo wax lu dul benn du ñaar du ëpp na ay fukk ñu ngi toog mu ne Cheikh Omar Fuutiyu ci kaw suuf tey ñaara ko fi tuwutu mooy Cerno Bachir Tall ca Louga ak Cerno Haadi ca Mali ca Ñooro te ëpp na ñaar fukki at boobaak léegi keroog bi Cerno Haadi gaañoo ca Mali gannaaw bi Cerno Muntaxa gaañoo bii ci Dakar dama ne Cerno Bachir kon nag léegi sa yenn mooy yenu nga la Cerno Muntaxa yenu woon yenu nga la Cerno Haadi ca Ñooro yenu woon booleeg li nga yenu woon kon Alaaji Abdou Aziz la mu doon wax yegsi na ah, ma ne ko góor googu du waxantu kon nag fa tabaarakallaahu moom mi ñu may ngont gi ñu ngi koy sant bu baax ndax ñewent njaboot rek moo tax mu def ko am na ko ànd ak nit te yëgul ne mu ngi xiif am na ko ànd ak nit te yëgul ne mu ngi mar am na ko ànd ak nit te yëgul ne rafle na wala su ko yëgee yoonam newu ci waaye dem bi ñu demoon Louga am ca ñu lekkul léegi bi mu wootee téléphone daf ma ne ñëpp lekk nañ ma ne ko ñëpp lekk nañ te am naa njort lu rafet ne lekk yi des na mu ne maa ngi door a wér imaam nee na ñor na neex na ma boole ci saf na sàpp nag <laughs> kon boog atumaan jaraw lakk yaa ña la doon jàppale jus yeeg luñ yaakaarutoon sax am na ci boisson ak ay jus yeeg yépp am na te ay jaami yàllaa ko fi indi ah? kon nag ah? waaw imaam Lamine Diop ne na yàpp wi soxlawul loxo boo ko ne bëseeg sa kuddu sax mu mu dagg. ma ma ma dollil ko ci moom lu mu wax nag ma tulli. ma dollil ko ci. Ah. bi bi ma aatumaan woowee ne ma defar nañ nag yi ba ba noppi xool ko ma ñëw di ko xool aatumaan ne ma yàpp wi de moo gën sa yàpp gàmmo wi fuuf <laughs> ndox sa gàmmo gi nag yi daa màgget. Ah, <laughs> ndeysaan Thierno Bachir moo bëgg. nga xam ne loolu. moo la bëgg te keroog bi ma koy wax Thierno Bachir Thierno Ousmane a ngi toog ma ne ko nag yi nga ma indil de mosuma ko rendi ci sama gàmmu man. Hmm? wax dëgg yàlla. kon nag gars yi Rama ngay wax ca biir nee na neex na lool tabaarkàlla su ko defee nag. wëli bu toll nii ci yàlla. Hmm. am cër bu day nii ci yàlla. Hmm. yéene ñu teraanga bu day nii. mënuñu lu dul sant ko. gërëm ko te ñaanal ko yàlla fan wa baayam Cerno Seydou Nourou amoon yàlla na ko am ci barke Alaaji Abdou Aziz fan wa Cerno Seydou Nourou amoon dinañ ko sàkku lit ci mbooloo mi ñaan wér gu yaram ak gudd fan rek la suñ mbokki murit yi di wax loolooy dëgg boo amee kilifa danga koy ñaanal sëñ Baara yal na fi yàgg te wér baax na waaye Cerno Bachir yal na fi yàgg te wér ñoom ñëpp ñu bokk fi yàgg te wér ku am kilifa danga koy ñaanal ndax koo xam ne bu dundee sa sag la te bu demee erreur mën naa am ndax ki la yàlla di rusee fekk mu ngi fi yàlla rus la laa yuazibuhum allah wa anta fihim wala yuazibuhum allah wa hum yastaghfirun yonent bee taxoon yàlla di wax waaye ñi wuutu yonant bi dañ toog toogaay boobu yàlla ne yonent bi li imaam Moussa doon wax du ma mbugal seen sa xeet wi mukk fekk yaa ngi ci seen biir yonent bi téye gémmiñam ne ko man damay dem di ndax wóor na ma ne damay dee su ma dee nag mu ne ko duma leen mbugal mukk fekk ñu ngi jéggulu seen borom kon alhamdulillah Cerno Bachir yal na fi yàgg te wér Cerno Bachir yal na fi yàgg te wér Cerno Bachir yal na fi yàgg te yal na ko yàlla may dund ba Cerno Saidu Nuuru dundoon dund na téeméeri at ak ñaar fukk Cerno Saidu Nuuru yal na ko ko yàlla may wala sax am na ñu ne ëpp na ko waaye lu mën a am rek yal na ko ko yàlla may may ko nag wér-gu-yaram bu mat sëkk bu mën a doxee li muy dox yépp ak bu mu mën a defee li muy def yépp gis nga Thierno Bachir nit ku yéeme la imam bi ma demee alxemes bi paase seeti ko fi muy dal parcelle xaw naa jooy koo xam ne bu ko neexoon dal ci château bu ko neexoon kër gi gën a lix Dakar bu ko laajee ñu dalal ko fa am na taalibe yu ko am mais billaahi boo demee ci kër gi mu dal xar yi ñoo lay gatandu mais mais mais mais xar yi meem ñoo lay gatandu xale yi jàng daaraa nga fële néeg bi mu nekk mu ngi lëndëm crise lamp sax tàkku fa maa ngi ko fekk mu ngi sol mbubb mu woyof tëdd dama dama feebar ci suba ba tey recevoir ma kenn ma téye loxo bi di ko bës ne ko papa dara du la dal mu ne ma dara dina ma dal kañ ndax damaa feebar ma ne ko waxi ni wolof la mu ne mu ne ndax yonent bi daal boppam daan na métti daan na feebar ma ne ko loola daan dal yonent bi nag moo lay dal waaye yow dara du la dal jàmm rek balaa ma fay jóge mu ne ñokket toog di waxtaan ba mel ni du moom nitu yàlla la boo xam ne ku yéeme la ni mu fonkee doom aadama ni mu yëgee nit soo demee Louga ndax lekk nañ ndax am fiñ dal baax na bu tàkk bu timis jotee bu demee ca jàkka ji di julli ca suuf ca gannaaw lay toog mën na ñëw sax te waa jàkka ji duñu xam ne Thierno Bachir ñëw na bu ñëwee fa lay toog julli timis ñu wasifa mu nga ca gannaaw rek du fa jóg bu ñu wasifaa ba noppi noddu julli gee ñépp ñibbi mu jël basangam lal jàkkaarloog baayam Thierno Mountakha Taha ne ñëpp ñibbi leen ñëpp ñibbi mu des fa ba 10 heures wala ba 11h yenn yi ba minuit mu ñëw lal ci digg ëtt bi ne indi leen reer yi bokk ak ñëpp door a fatu biir néegam. Hmm? man li ma gis ci Thierno Bachir mooy li ma gis ci El Hadj Aziz teg teg amuñu wute El Hadj ci ci ci loxo yu nooyee boo ko mosoon lii da ngay foog ni loxo yi witteen la man dama foog dama daan dem mel ne góor gi est-ce que loxo yi am na yax. boo ko nuyu loxo yi dafa nooy nepp waaye am na bés ndeysaan ñu di ko ci jëw mu ne liggéey ba dee rek ko tax a nooyee nii waaw mu ne loxo yi liggéey ba dee moo ko taxa nooy mu ne li ma daj ci sëriñ yi mburu daju ko ci taal mu ne sëriñ Haadi daf daan taal fii séb taal fii séb teg ma ci digg bi mu ne moo ma indil sama méttitu ginnaaw gii keroog lañu ko nettali ci jag saw mu ne sëriñ Haadi daf daan taal sébb ci gauche càmmoñ ndeyjoor gauche càmmoñ taal ko ci droite muy ndeyjoor teg alaaji Abdou Aziz ci digg bi jox ko àlluwaam ne ko jàngal nee na lam ca jublu woon mooy su ma nelawee ba jayeexu rek daanu ci bu ndeyjoor bi wala su ma jayeexoo càmmoñ daanu ci bu càmmoñ bi mu ne ca la jëlee méttitu ndiggam li bu bu bu tisbaar mosaan jot danaan ana Abdou Dieye ana Pape Makhtar Kebe ñu ñëw mu ne dóoral ma fii ndànk ñu di ko dóor ndànk ndànk mën nga koy dóor pendant quarante minutes mu door a wax doy na bu tàkkusaan di jot mu arrêté nee na loolu mu ngi ko jëlee ca Faas ca daara ja mu ne ba am ñu ñëw ne Seydi Hadj Malick aadi ah dey dafay rey Abdou waaye jàngalu ko la la ñu gis jàngalu ko mu ne sëñ Haade ànd ak moom ñëw seet si Seydi Hadji nee na ñuy ñëw bay ñibbi Seydi Hadji Malick ne ko Abdou am na ñu fi ñëw day ne ma aadi day jàngalu la daf lay rey loo ci xam mu ne ko papa nit ñi dañoo bari solo rek bari man-man waaye sëñ Haadi bëggul lu dul ma baax sëñ Haadi bëggul lu dul ma baax papa maa ngi lay waatal ne Serigne Hadi bëggul lu dul ma baax mu ne Seydi Hadji sëgg muñ ne ko doom boo waxoon leneen sama yaakaar tas kon Thierno Bachir li may wax sax bëggul ma wax ko waaye dinaa ko wax boo gisee mu dof ci alajab du nekk Baay Faalam a tax dafa gis Thierno Saïd Nourou mi ko yar moom Thierno Bachir ni meloon ci alaaji Abdul Aziz maa ngi ñëw de ci Cheikh Omar laa jëm hors d'œuvre lay joxe dafa gis ni mu dofee Thierno Saïdou Nourou man li ma ci gën a yéem sax bi Thierno Saïdou Nourou demee Thierno Muntaga bii fi nekkoon man am na bés ma toog pom ba kër Alaaji Abdu ba mu yàgg ma naan na ma yàlla baal Thierno Muntaga est-ce que bopp baa ngi ci moom xam nga lu tax day ñëw léegi nuyu góor gi salaamaaleykum Abdou toog xool alaaji Abdu ba mu neex ko mu ne ko maa ngi dem ci kër ga ci xale ya dem ñibbi 15 minutes mu ñëwaat salaamaaleykum Abdou toog dana ñëw plus plus plus de 4 fois 20 fois ci ci bés bi am na boo xam ne dafa ñëw nuyu ko ñetti yoon toog ba ñeenteel yoon bi xam naa daa ruus mu toog ci ruq ba man maa ngi toog na le Cerno Muntaga toog ci ruq ba ñu bari gisuñ ko Abdou Dieye bëtam dem bëtam dem ci Thierno Mountaga rek mu ne papa Thierno Mountaga ñëw na de mu nga ci ruq ba toog mu ne ko Thierno boo ñëwatee yëglul mu ne ko dama laa bugg rek Abdou dama laa bugg rek loolu ku ko mën a fay ci koo xam ne surtout Cheikh Omar la Thierno Saïdou Nour nag joggati ñëpp lu Alaaji Abdou Aziz am moo ko ko organisé ko bëgg sëñ moom daf daan wax ne benn doom la ma yàlla jox am naa baay nuuru am naa maam Cheikh Omar waaye Abdou laa ko tuddee mu ne su ma amoon fukki doom yépp Abdou eh, mu ne su yeboo sax kër bi bu ma nee Abdou ñépp wuyu ma yónni ki ma bëgg ñoom Thierno Seydou Nourou moom beneen affaire la woon ci El Hadj Abdou Aziz beneen affaire El Hadj Abdou nettali nañu ci gémmiñam ne ma kër gii ci pom bi Thierno Seydou Nourou tax ma am ko mu ne moo ñëw fekk ko ci Medina mu nekk ci benn baraag El Hadj Abdou nee na muy taw baraag bi di senn mu ne ma jël gaal gi weñ la woon waxande weñ def ci sama yére yi dugal ko ci gaal gi ak téere yi toog ci pour bañ mu tooy. ci doomu Seydi Hadji Malick nee na Cerno Seydou Nourou ndox ba fekk ma fa ne ma Abdou fii nga dëkk mu ne ko waaw mu ne ma cim baax na yow gardien rek nga waaye ndekete gardien bi affaire la hmm? gardien bi wuu hmm. affaire la xadratul ilahiya El Hadj Abdoul Aziz moo nekkoon gardien bi waaye nee leen li waay kum doo julli kum ubbilul doo dugg Cerno Yaxya lii moo ma ko wax ci gémmiñam mu ne dafa am waliyu bu ma toogal muy waliyu bu mag ci réew mi nee na muy werante ne ko mu ne ko doom mu ne Yaxya man de li ma jaaxal mooy Alaaji Malik moom day cër yëpp jël na ko doomam yépp xam naa leen waaye Abdu laa xamut ndax Abdu waliyu la mu ne jubluwu ci waliyu simple lam ca jublu mooy wali yu buy def tasarrufaat wali yu bu toog Sénégal multiplier boppam soixante personnes avec te benn Jidda avec te benn Louga avec te benn Ndar avec te benn France avec te benn fii ci Géejawaay loolu la loolu la doon wax mu ne est-ce que Abdou yegg na foofu Cerno Yaxya ne ko ah diw mu ne ko ah mu ne ko ma yëgal la ne damay bañ a tudd tur ndax kilifa la ma yëgal la ni la tax ab du kenn mënu ko xam ca péey ba mooy toog ca bunt ba ku ñëw ma lay ubbil mu ne ko te néew na nag gardien bi ci bunti kër gi nga xàmmee ko ndax taxu laa jóg boroom kër gee la tax a jóg ah, mu ne waaye boo reppee ba gardien bi ubbilu la doo dugg ah, ah, mu ne ko te Abdou dafa yàgg simple simplicité moo tax bu la ubbilee ba noppi day tafu pour bañ nga xàmmee ko mu ne bu ñëpp toogee ba géew ba sallallahu alayhi wa sallam ñëw toog mu ne ab doy sës ci moom rëkk leeram day frappé ci leeru yónnante bi sallallahu alayhi wa sallam ba kenn du leen xam ne Moussa mi xam na li ma ko naraloon yeggoon nag moom foo xam ne doon na dund du suukar attaaya yeggoon nag moom foo xam ne doon na dund ba dee du suukar attaaya waaye keroog bi ma Cerno Bachir ci kanami imaam Moussa imaam Moussa ngi toog uturug diw ñetti yoon uturug diw uturug diw keroog laa ko soppi muy xéewal ci moom tey ñi ko ëpp xéewal Dakar bariwul moo tax ma ne man iñaanu ma su ma iñaanoon loolu du am. waaw mu ne yàlla Abdul Aziz. ziyaara bi mu mujj ñëw Louga. ba mu ñëwee. ba mu ñëwee. dafa woo Thierno Bachir mu ñëw. dafa woo Thierno Bachir mu ñëw. mu ne ko foog naa ne ziyaara bi mooy mujj mooy mooy bi mujj. mu ne mu ne ko foog naa ne ziyaara bi mooy ziyaara bi mujj. Eh. sama digganteeg yow. mu ne ñëpp a ngi toog. mu ne ci mu ne Thierno Bachir. ubbil sa gémmiñ te tàllal sa làmmiñ cerno gémmiñ gi tàllal làmmiñ mu ne cerno Bachir ubbi gémmiñam tàllal làmmiñam alaaji Abdu jël làmmiñ bi mocc ko alaaji la alaaji Abdu jël làmmiñu cerno Bachir màcc ubbi gémmiñam alaaji Abdou Aziz ubbi gémmiñam tàllal làmmiñam ne cerno Bachir màccal sama làmmiñ xam nga loolu lan la passation de service al ilaahi dafa am transmission yoo xam ne kenn mënu ko am ci waliyu lu dul nga sol mbubbam mu ne ba pare tàkkusaan jot mu ne ana Bachir mu ne ana Bachir booba dem na nëbb ji mu ne booba daw na dem nëbb ji mu ñëw mu ne ko jiiteel jaamu yàlla mu ne Bachir demal jiite jaamu yàlla yi yàlla def na ci yow yàlla def na ci yow tey koo jiite sa yaramam araam na safar laa ilaaha illallaah wax ko ko ñépp toog moo tax moom dofu alaaji Abdul te loolu masuma yëg ku ko alaaji Abdu defal ci kaw suuf amul am na wali yoo xam ne buñ bëggee nga dem seen mbubb lañ lay jox ma wax ci ñaar gis nga ku iñaan jàngil yëf yi jàng la nañ nañ jàngi man ku ma iñaanee demal nga jàngi ku mën defal bu dewee nee bu ñuy dem ci Thierno Bachir 2000 personnes ñooy dem wala lu ko ëpp. waaye nee leen ni waay. ñu fekk fa wala lu ko ëpp. ah. xul muutu bi ghayzikum yàlla ne yonent bi gaa yi mer nañ dee ak seen mer. dinañ dee de. ci barke Thierno Bachir yàlla defal na ma ci moom loo xam ne ak barke El Hadj Aziz lu ma bëgg yàlla def ko. waaye du ngeen fekk seen du ngeen def mu ne dina ci seede tuuti. bi nga ñëwee ci suma gàmmu gi mbuur bi ma ñëwee ci gàmmoom bi mbuur mu wax la la ma la wax mu wax moom Thierno wax ma lam ma wax lépp li mu la waxoon nga def ko lépp li mu ma waxoon ma def ko ba ma demee di ko rendre compte ba mu demee di ko rendre compte mu ma bu soobee yàlla mu ne ko bu soobee yàlla moom bu bésam bi ñëwee moom it bu bésam bi ñëwee yàlla dina ko jox lu ëpp dina ko jox lu ëpp loolu amul am na ah, ba ëpp ah, ah, kon ci gàttal nañ ànd ak wëli yi te yàlla tax dégg seen ndigal li jógee ci yàlla foofu la affaire bi nekk waaye ànd ak nitu yàlla di ko fakkastal wala di jaay xobe te xobe bi ngay jaay tegoo ko ci sharia mooy indi dérapage yi looy xobe ci nitu yàlla rek teg ko ci sharia ba kenn du jam nitu yàlla bi kenn du la jam waaye ànd ak nitu yàlla loo def ñu ne accam loo wax ñu ne accam foo dugg ñu ne accam ku ànd ak nitu yàlla war nga ko rus kon nag Thierno Bachir kenn mënu ko fay. kenn mënu ko fay bi bu mu amee. mu ne ziyaara bi bu mu amee. danga ànd ak mbooloo mi dem. dama ànd ak mbooloo mi dem. la ca am am ca. ba la ca am am ca. daf ma mu ne daf ko woo. man nag am naa lu ma métti. mu ne am na lu ko métti. ndax Cheikhu na Tijaani dafa ànd ak mbooloom ñëw. ndax Cheikhu na Tijaani dafa ànd ak mbooloom ñëw. ci ziyaara Cheikh Omar. ci ziyaara Cheikh Omar. aw ma jotug mën leen a teral. aw ma jotug man leen a teral. waxtu ba ñu àgg mu xat. waxtu ba ñu àgg see mu xat. waaye loolu métti na ma lool. waaye loolu métti na ma lool. moo tax bëgg naa nag. moo tax bëgg naa nag. loolu ñu rectifié ko. loolu ñu rectifié ko. Mm, bu ko defee ma yónnee la ci shérif. bu ko defee ma yónnee la ci shérif. mbooloo moomee yëpp. mbooloo moomee yëpp. mu ne man warlul naa leen incha allahu seen faju aajo bala déwén. mu ne man warlul naa leen seen faju aajo balaa déwén. mu ne képp ku fi ñëwoon ca mbooloo ma yàlla faj sa aajo. mu ne loolu Cheikh Omar may na ko ko. ci barke Alxaaji Abdul Aziz. mu ne nag bu bés bi jotee. solal naa la sama mbubu man. solal naa la sama mbubu man. sol naa mbubu Alhaji Abdou. sol naa mbubu Alhaji Abdou Aziz. man ak yéenay ànd ca ca ca ca biir waaye du ngeen ma gis. man ak yéenay ànd ca biir waaye du ngeen ma gis. waaye lu fa waay def wala lu fa waay wax man maa ngi teg. mu ne waaye lu fa waay def wala nga wax ko fa maa ngi ci teg sama bët. bu ko defee Chérif Ibrahima nag. bu ko defee Chérif Ibrahima nag. mu sol mbubu Cheikhuna Tidiane. mu sol mbubu Cheikhuna Tidiane. nitu yàlla ya fa jaami yàlla ya fa nekk yëpp mu bégal leen. mu ñaanal leen ñëpp ñëpp kenn bu dem ànd ak benn njàqare wala benn aaju mu ne mu ñaanal ñëpp kenn bu mu dem ànd ak aajo bu fajul wala njàqare mu ne nañ ko dugal ci biir garanti Cheikh Sidi Ahmad Tidiane ci barke El Hadj Abdoul Aziz. Ah. ci dugal suñu gadaay bii Thierno Mansour Baro def na ci gàttal li tax ma ne passation de service la am na nitu yàlla yoo xam ne buñ la bëggee sol maqaama seen mbubb lañ lay jox. moo daloon Cheikh Sidi Ahmad Tijani ak Aliou Harazim Barada ba mu summee mantoom bi jox boobu maqamatul xutbaaniya la Aliou Harazim Barada waroon na yéeg Cheikh Sidi Ahmad Tijani di yéeg maqamatul xatmiya ak katmiya moo daloon Cerno Ahmad Baro nii di jat bàyyi Cerno Mansour Baro mii ñuy tudd ak Cerno Mamad Saïdou Ba ca Medina Gounass Thierno Ahmad Baro Cheikh Al Hadj Omar mii foofu laay duggee ci waxtaan bi ngand mii moo ko feeñ yaqazatan laa mënaan ne ko Ahmad Baro wëliir yàlla bu ñuy wax Thierno Mamat Saïdou Ba ay boro ci moom mu bëgg koo fay tax mu màng di commerce pour fay bor waaye yàllaa bu ko nattoo daan demal dëkk sangam di nga ko fa fekk muy jaay loolu la ci yàlla jubloo boo demee di ko fekk muy jaay fa muy jaayee daf fay jàngale jawahirul maani di nga ko fekk mu yegg ci benn bunt bunt booba bu koy firi da yegg si ca day wax ne baat bii sama sëriñ noonu la ku dul nitu yàlla mënu koo firi te yàggaguma ci maqaam boobu mu ne su ko waxee rek roofal attaque war ko ne ko yaay nitu yàlla bi ko war a dimbali Cheikh Ahmad Baro di niiti niiti est-ce moom la wala du mu def ko mu ñëwaat waxaat ko moom Cheikh Omar ñaareel yoon muy niit niital mu ñëwaat waxaat ko ko ñetteel yoon muy mu ne fi may niit niitalee rek Seydi Hadji Malick ne jamet ci sama kanam ak xaal bu tàng ne ma Ahmad Baro Ahmad Baro Ahmad Baro def nañ la exil Mbour pendant deux ans bu fi duggati sama sëriñ Cheikh Omar ñëw di wax ak yow ngay sikk moom la wala di sikk du moom ñaari at yàlla bul dëggaate ci sa tànk Mbour génnal wala yii yëpp daje nañ ci diwaanu lamb yaay ne bul duggaate Mbour fekk ñaari at yu mag mu fax bàyyi njabootam yëpp Mbour ay nga dem di mu ngay seeti Thierno Momadou Saïd ñëw ba fekk dëkk bi ko Cheikh Omar waxoon góor gaa ngi toog ndongo yaa ngi woon muy jàngale ba yegg ci baat bi ne baat bi sama sëriñ noonu la ku ku dul wali bu am fatxu mën a ko firi Thierno Ahmad Baro Rango si tojal ko ko tojal ko ko tojal ko ko ba ñëpp di niir. Cerno Mamad Saïd ne bi nga ñëwee sukk dama noonu am naa taalibe bu bees ndekete woo sëriñ la am <laughs> mu ne ko bés ni tey nag la ma sama sëriñ waxoon gis naa ko yaay sama sëriñ waaye Mansour Ba lu fi baax Alaaji Maali nga lu fi baax Cheikh Omar la nee na ma jëflanteek moom ne ko foo toll ci wàllu yàlla mu wax ma nit yàlla yi buñ mosaan dajee noonu la ñuy waxtaanee foo toll ci yàlla nga wax mu dégg yow it nga wax mu dégg ngeen seet kan moo supérieur bi ñu waxantee góor gi wax ko li muy sikkar ci salaatul faatih mu ne ko loolu tuuti na day ci def douze mille par jour waaw Cerno Ahmad Baro ne ko tuuti na del def douze mille par jour te ci benn jotaay ah. amul ma tuur ndox amul ma naan te ñëw ah. ci benn jotaay ah, mu ne ko te du bëccëg yaa ngi koy def gannaaw gee balaa fajar di xar boo jullee gee ba noppi balaa fajar di xar douze mille douze mille salaatul faati Cerno Ahmad Baro eh, Cerno ne ko ah dana métti de waaye mu yaakaaru moom mën mu ne ko demal góor gi dem premier jour bi am 3000 ñu nodd fajar mu ñëw ne ko matul dem mu ne ko 12000 laa wax ca ñaareeli fan mu am 5000 mu ne ko 12000 laa wax ca ñetteeli fan ba mu am 6000 ne dëgg dëgg na ko rus naa dem ci góor gi naan ko matul comme am na secret buñ ma joxoon ne wecc na. cent mille salaatul fatih xaral ma dóor secret boobu yéene ci rek douze mil te noppalu ba fajar mu laal secret boobu noppalu ba fajar xëy nuyu góor gi góor gi ne ko nakam noo def ak douze mille yi def nga ko mu ne ko waaw naa ko alhamdulilah góor gi xool ko ne ko def nga ko mu ne ko waaw mu ne ko moo ne sa lamp yi dara tàkku ci de ampoule yi ma gis benn rek a ciy tàpp mu ne ko lamp yi tàkkul douze mil yi feeñut benn rek moo ciy tàkk mu ne ko bu douze mille yu matoon yëpp takk te gisuma mu tàkk mu ne ko dëgg dëgg dëgg baro mënuma ko mënuma ko mu ne ko waaw kañ loolu laa bëggoon dégg jóg aji benn mbubbam ci portemanteau bi jox ko ne ko boo jullee gee ba noppi nga sol ko toog si kër mu jël mbub mi wallaahi jox ko góor gi julli gee ba noppi sol mbub mi balaa 4 heures du matin sikkar na fi 12000 salaatul faatihi naa fi la fi téeméeri ràkka toog di xar fajar ndax mbub ma ndax mbub ma ndax mbub ma eh, ku weddi wilaaya xamoo de mooma nag nitu yàlla yi nag dañ am façon hmm. mbub mooma mu joxoon góor gi Ahmad eh, Ahmad Baro joxoon ko Cerno Mamad Saidu royee ko ca Aliou Harazim Barada ak Cheikh Sid Ahmad Tijani la Serigne Cheikh Tidiane si doon nettali dafa ne te ñu woo Seydina Cheikh ne ko xadara bi jot na dajee ci xadaratul ilaahiya mu ne taluma ko ndax dama am doom bu feebar te dama ko war a jëndali ay eh, yooyu la ci la summi mantoom ba nag jox ko Aliou Harazim Barada ne ko demal remplacer ma. moom mu yónnee moom moom mu yónnee. Eh. moom Cheikh Sidi Ahmed Tijani. Chérif radiyallahu moo tax am na benn xale bu ñëw démb ci kër gi. li ma ne dafa gënt Serigne Cheikh maa ngi koy wax démb ci xadara bi ne ma dama gënt gis Serigne Cheikh Sidi Hadj Malick Serigne Babacar Sy El Hadj Mansour El Hadj Abdou mu ne ak moom ki xale bi ak man mu ne waaye ñu ngi tëdd ci ay nit yu dee rek ma ne eh, kii moom si gëntam gi doy na mu ne ci ay nit yu dee rek lañ tëdd mu ne ña fay dund daal moom Serigne Cheikh la ak moom ki gënt gënt gi ak man mu ne Seydi Hadji Malick ne ko doom gis nga fii ñu tëdd mu ne ko mu ne ko moo gën a tedd ci palaasu àjjana yi mu ne ko te fii Cheikh Tidiane si al maktum moo ko ñaan yàlla ba yàlla may ko mu ne ma daal gënt gi daf ma jaaxal ma ne ko barzaxam la te demagul mu cay teral ay maam ak baayam ak i ma ne ko barzaxam la te demagul mu cay teral ay baayam ak i maamam ah kilifa gu yéeme la Serigne Cheikh loolu wali yi ko man bëriwul nekk fii di teral gaayee fële am sa autonomie barzaq mooy autonomie réserve mooy barzaq kon fa tabarakallahu ku mel noonu nag ci Cheikh Al Hadj ci tënk bari xam-xam lool man gis na li ma njëkk a yéem ci Cheikh Al mooy xam-xam bi balaa wilaaye gi moo tax ñëpp war a uti xam-xam gis nga am na loo xam ne balaa ko yàlla di def ci sa dënn dangay ngay jàng de xamoo ko am na wilaaya yoo xam ne ku jàngul dara du ko am yaakaar nga ne Serigne Touba li mu am yàlla màggal gii passé démb ah. ba eh, am ko tarxiis wax fa ne ñoo ko yor dafa tiit rek bu ko kenn mere dafa tiit rek dafa tiit mbir yi ki ko yor kenn rek la mooy suñu borom subhanahu waaye dafa tiit ndax la mu gis àttanu ko dafa tiit bu ko kenn mere dafa tiit nitu yàlla mel noonu déggoo li Alaaji Abdou Aziz Fall wax léegi Cheikh tubaab yi buñ toogaan di ñëw fu ñuy jaar pour rey ko dañuy jékki-jékki rek tël bunt bi daw génn ne Cheikh ñëw na te dañuy jékki-jékki gis jëmm ju leen tiim ak jaasi ci biir biro yi waaw loolu cër la nitu yàlla yi ba ñuy liggéeyal yàlla ceddo yaa ngi nelaw ñu baal ma njuufeen yéeg fayeen yaa ngi nelaw <laughs> sama yaay ca la bokk ndax juuf la sant kon Cheikh Oumar beneen affaire la ñaar rek laa ciy wax jox bàyyi Sanke mu ñaan ci ndigalu Thierno ak ndigalu Serigne Hadi bi ko ko jox ñaar rekk laa ciy wax ndax jotaay bi laaju ko guddi na bu njëkk bi mooy xam-xamam bu mujj bi mooy wilaayam bu ci nekk dama ciy mos xam-xam bi xam nga xam-xam mu ngi yem ci moo tax nañ yaraat xale yi yaraat suñuy doom orienté leen ñu dem jàngi lii ma gis ci réew mi doxul fecc guddi fecc bëccëg fecc suba fecc ngoon waxtaan naan attaaya léegi jigéen ñi sax njaro euh, euh, waaw kumba feccatuñ góor ñu ñàkk jom ñi rek kay fecc boo ubbee télé bi jigéen ñi sax feccatuñ léegi léegi ñuy fecc ñëpp ay góor la di def lu dara jarut nag te waroon a jàngi gis nga xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni annaasu kulluhum halka illa al aalimuuna du caaxaan imam wal aalimuuna kulluhum halka illa al wal aamiluuna kulluhum halka illa al muxlisuuna wal muxlisuuna ala xatarin azim salaay salaam nee na nit ñépp unanimité kenn bàyyiwul bàyyiwul kenn bokk nañ alku ba des ñi xam mooy boroom xam-xam yi mu ne waaye boroom xam-xam yépp alku nañ ba mu des ñay jëfee lañ xam waaye du jëf li nga xam yépp ngay jëfee am na lu ca baaxul mu ne waaye ñiy jëfee li ñu xam yépp alku nañ ba mu des ñay sellal jëf ja mu ne waaye ñiy sellal jëf ja ñu ngi ci danger xamuñu yàlla nangu na wala nanguwul liñ sellal wala su ko nangoo ba ñëw ëllëg nu muy def ak ñoom mu ne ñoo ñoo ngi ci danger kon premier pas bi nit di def jéego pour jëm ca yàlla mooy xam te ku jàngul doo xam ku jàngul doo xam Serigne Cheikh nee na am na ko ma mas a fekk Tiwaawan naan ma dégg naa ne sëñ Babacar dalaa sol mu ne ko fët fëti naa ba dee de fët fëti naa ba dee kon xam-xam moo jiitu nañ jàng jàngaloo suñu njaboot réew mi buñ bëggee mu jag nañ jàng maani nitu yàlla yi imaam nee boo jàngul doo ko dégg déedéet abadan yàlla waxul ak ku jàngut taarifuuni qabla an taabuduuni fa in lam taarifuuni fa kayfa taabuduuni yàlla ne xam leen ma balaa ngeen may jaamu su ngeen ma xamut nu ngeen may jaamoo ku mën a xam yàlla te jàngoo hmm, am na wali yi yu ñuy jazbu yóbbu leen ca yàlla waaye xam nga wali yooyu boo demee ca pays ba nu ñu leen tuddee wali yu kon ñu jës bu ñu dem ci kaw waaw mooy wali yu kon xamul dara xutumba la rek dañ koy diriwaale wali yu la waaye kon la am na fii ci gouvernement bi di gouvernement bi amul ci ministre yoo xam ne dégguñ tubaab laaj naa la Ah, buñ waxee gars yi di wëccu amul waaw di fot rek sama waa kër yi nga xam ne ñëpp a dégg tubaab léeg bu may dem man déggu ma waaye bu may seetaan ñu naan déggal li muy wax man xaw ma ci dara waaye ñoom xam nañ ci fot rek di fot rek de l'État voilà ku wali yi noonu lañ mel am nañu bokk ci gouvernement yàlla bi di wali yu te jànguñu dara ñooñu kenn royloowu la leen wali yu bu ñuy roy mooy waliyul mursal waliyu mursal wala wayliyul mursid ñoom lañuy ñuy roy waaye wali yu buy ndaataatal lax kenn du ko roy am na nag hmm. am na wali yoo xam ne dañuy fecc sabar ba jant bi so te fekk wali yi lañ mu ne am na benn tegtal waaw waaw mu ne am na ci benn tegtal boo xam ni Cerno Bachir moo ko def suñu fii benn taalibeem fii ñu naan ko Cerno mat Diallo Eh, kër gi mu luye woon. kër gi mu luye woon. ci ngoon si ñu def fi sabar bu rëy. ci ngoon si ñu def fi sabar moom itam nag borom cër la ci moom it ci borom cër la ci yàlla. mu xool xool ba mu yàgg ne ñii daal dama leen a war a alak rek. mu xool yàgg a alak rek. ba mu yàgg mu ne ah naa leen fi bàyyi rek dem ci waliyu yàlla ba. mu ne naa leen fi bàyyi rek fanaan ci waliyu yàlla ba Louga. bu ma xëyee ñibbisi. mu ñëw jox Cerno loxo mu ne ko gis nga ka nekkoon ca digg géew ba. mu ñëw jox Cerno Bachir loxo Cerno ne ko gis nga ka nekkoon ca digg géew ba. dàq saa fecc. mu ne boo ko mu ne ko boo ko laaloon. yow kenn dootul la mën a defar yow kenn dootul la a defar. loolu gis nag moo tax ma daldi mu ne ko loolu laa gis nag moo tax ma jës bu ma ma xëcc la pour nga ñëw Louga fanaan si balaa ngay yàqule yow moo tax am kilifa baax boo amul kilifa noo koy nooy ku lay defal loolu kii xam na ko sama waa kër yi am nañu ko ci xam Tamsir Mbóoj nekkoon fii ci Tëngéej. Tamsir mbóoj bu la jiite woon julli fii yow da ngay ree ba julli gi lu yegg bu la jiite woon fii julli yow bu soobee yàlla doo julli da ngay ree ba doo julli ndax manière bi muy jullee rek moo gën a garaw Tamsir Mbodj laajal ñi dana wogasu bu sujud baag rukku ba moom bul xam Fall mufti bi dëkkoon fii parcelle buñ mosaan wax ne Tamsir mbóoj doxal ci kanam Fall ne man nag sama diine jaayuma ko nag Tamsir mbóoj du ma jiite fa Fall Fall Mufti sama xarit la woon fi ki moo tuddoon Fall Mufti koo fi dégg rek sukk naa ci ruumam billaahi Fall Mufti ñëpp la ñëpp dof lañ ko jàppe woon boo demee Parcelles ni kër gam fa amoon kër gu ko gën a rafet te moo ko moom ndar la dëkkoon waaye am na fii kër parcelle Fall Xalil mooy magam Fall Mufti oh. mooy fal masala rek mujj gi mu ne xeeb na masala mufti la moo tax mu naan fal mufti daawul jóg kër sëriñ moor Jóob daaw fa jóg fal mufti ma dem ma ne ko faal dinaa la seet si mu kontaan ca ma ñëw ne ko faal falaay reeree si bi ma ñëwee moom kert moo nekk ci kër gi amul jabar amul doom ma ñëw foog ne xëy na dana togg sombeek yooyu faal xëcc saako ci ron lal bi teg muy gerte baxal buñ buñ weer ba mu wow gerte mbaxal buñ weer ba mu wow moom la xëcc ci ron lal bi génnee teg ataaya ja xam naa ca suba la ko tegoon yootu furna bi teg ne ma ca ñu reer man lii lay reere su ma noppee nag jëm ci yàlla nag naafila nag sikkar nag ba bër set nag may dof doflu nag ci nit ñi ma ne ko faal man gerte yi sama dund gerte rek laa bëgg ci kaw suuf te ñépp xam nañ ne man gerte rek laa bëgg du dara nag lu dul juddoo saalom rek al ko ci gerte gi rek a ko war loolu rek la nag nitu yàlla yooyu nga xam ne yàllaa leen defaral seen bokk fekk na ma sama bureau may ma kasetam. mu ne fekk na ko bureau may ko kasetam. ci jamonoy Sonatel moom mii moom Ibrahima Seck nit ku nit ku yéeme la woon fu ma tollooti sax balaa may déraper. moo tax wilaya yi am na wali yoo xam ne ah, kenn du leen topp la ñuy def sa yoon newu ci. Tamsir Mbuuj ci waawoon Imaam Moussa ngi nii du bàyyi ma fet ñoom soxna ummu. maquillé ko maquillage solal ko yére jigéen di ko tëggal tam seen mboj di fecc alaaji Abdu ñëw yem ci sëmboo ay rongañam utali sëñ Babacar ñëw ne sëñ Babacar dëgg-dëgg xale yi tooñ nañ ma tey wëli bu day ni tam seen keroog la Tamsir Mbodj weeru waliyu bu day ni Tamsir Mbodj xale yaa ngi ko solal yërey jigéen di ko tàcc muy fecc loolu jaaduwul sëñ Babacar woo xale yi ñu woo Tamsir Mbodj mu ñëw ne ko ah, xale yi dañ la doon tëggal ngay fecc dégg naa Tamsir mu ne ko yee waay sama papa Abdou daal moom moom mën a garaawal rek moom day fekk lu garaawul mu di ko garaawal sëtu Maodo yi ma di leen bégal di fecc rek moom muy garaawal loolu loolu dafa garaaw xoolal moom mu ngi jàpp ne sëtu Maodo yi lay bégal mais feccut yooyu yeneen pàcc la waaye jamono yegg na foo xam ne ñooñu nañ fatu ji bàyyee ñoom ñi jàng di orienté nit ñi di leen jubal di rafetal jikko yi di tëggaat jikko yi di baaxal nit ñi di nooyal xol yi di baaxal xol yi loolu la jamono soxla waaye soxlawul feccikat soxlawul wali yu buy làqatoo taatu jigéen ñi ku ko ci def dee rek hmm? sëriñ Babacar si daf daan wax ni wali yu buy làqatoo taatu jigéen ñi de am na waaye yàlla ñu ci yàlla musal